loolu ko euh, jël mbalaan bi nga xam ni moom la ñu defee kaaba gi mu defee ko ko ni woon daf koy barkeelu jox ko sëriñ bi mu nekk souvenir bi nga ñëwee nag sëriñ bi ni kii daal souveniru màkka woon ci moom waaye yow la koy jox ndax gis na la bi ngay jàng alquran mu bég lool nee na rek moo ko ci jaaxal nee na waaw nee rek moo ko ci jaaxal nee daal fay gi moo ko ci jaaxal ak sim ji daa ba yaa ngi dégg ak njaaye waaw baax na ngor eh, lé lé léegi itam dafa waxoon ni bii itam mi ngi jóge ci Makka moom itam ci raw du yonent bi salaay salaam lañ ko joxe woon siyaade bii mu itam mi ngi la koy jox comme cadeau amin nee na kii itam xuut la bay naafi la bay weer di dóor ya ngay dóor nee na nga tuuroo ko bu ko ci fàtte ci ñaan eh, bii maamam Seydi Hadj Malick moo ko firi diwaan bi nga xam ne lépp lu alaaj Malick wax ci li ñu mën a génne mi ngi fii li ñu génnewul moo waaye yii la jot a génne mu ni kii mu jox la ko comme cadeau koo demee nga lii ko xool li sa maam Seydi Hadj Malick def nga ñëw nag ci bés bu leer muy altine ku ne xam naa altine oh. li ci xew yëpp te hasard amul. Ah. xamoo ko woon xamu woon xamuñu ko woon. kon ci altine jooju nga ñëw te tàllal yàgg ñi nga àndal ak ñi nga bàyyi gannaaw mu ñaanal la yàlla mission bi nga xam ne yàlla gàll na la ko yàlla defal la ci lu ëpp sa yaakaar mbokk yi ñëpp tàllal.